ñun dañuy ñëw pour gagner 3 points Égypte la ñu 3 points ba pare doog ñëw Sénégal ñun suñu qualification Égypte lañ koy jouer ba pare doog a ñëw fii man daal loolu laa gis. parce que équipe nationale ay ñun ay ay professionnels lañ yor yoo au niveau lañ nekk ay public ay ay yooyu yëpp mënu leen perturber quoi parce que pression yi non non mënu leen perturber parce que man jour jour équipe nationale Sénégal yi ñoom public bi sax pour man bu feesee sax man pour man avantage ci ñun parce que ñun loolu lañ bëgg. waaw match boobu moom niñ koy fubalee mooy dañ koy fubalee ak xel rek waaw bañ ko fubalee ñëw jàpp équipe bi ne yow yaa ko mën da ngay ñëw rek gañe ko ak xel nga ko war a fubalee loo fa am match nul sax ñun bañuñu bëgg nañ. war mun nañ ko aborder ak sérénité ak xel bu dal dem ba jeex nag parce que match de qualification la égyptiens yi seen match de vue la ñuy joué ñun tamit suñu match de vue la ñuy joué ñun mënuñu jógee championnat d'Afrique bi jël jël jël championnat d'Afrique ba pare ñëw Égypte di ñu éliminer loolu catastrophe la. waaw ñun xoolal dañuy song dañuy fubal suñu fubal ñun ñun ñoom li ñu fubal intéressé wuñu mais ñun suñu fubal nañ ko teg kenn mënu koo dékku buñ fubalee incha allah yàlla daf ñuy may ndam te loolu laa gëmaa ah, Sénégal day am ndam aller am ndam retour. voilà loolu champion d'Afrique bi dañ koy jël teg ko nale parce que ci coupe du monde la jëm te ay champion rek a fa nekk champion d'Afrique dañ koy jël teg ko nale ñëw suñu fubal comme si nekkuñ champion d'Afrique. yàlla dinañu may liñ bëgg. Sénégal buy fuweel match boo xam ni stade bi kenn du fa nekk bu boobaa duñ sax joxe seen kii mais bu bu stade bi feesee ñu wane ñoom ñooy Sénégal te aw ma lu may ragal no bu ñu calculer te no calcul baaxul di xaar baaxul ah parce que Égypte kenn du ko xaar. bien sûr Sénégal mën na fa am victoire bi victoire un bi Dakar sax ñun soxla nañ ko loolu baax na. bon yaakaar naa ne pression bi si Égypte la nekk mais nekkul si Sénégal waaw te yàlla nañu yàlla may ndam. Sénégal la ñëpp bokk ànd ak lion yi muy chrétien jullit musulman ku nekk na ñaan si sa diina comme ni ñu ko defee Coupe d'Afrique bi ñu àndandoo booloo Sénégal si kanam.